Hakim bi nee na leçon yi la dund gi di jox du gratuitement may jox la ko noonu rek sans nga fay ci dara kon nag bul ko onk ka jàmbat wala nga di ko jàq ka jaaxle saa boo xamee ne yaa ngay fay frais leçon yooyu noonu ndax lépp loo jot rek am na frais frais leçon yooyu nag mooy teg-teg yi nga xam ne danga ci jaar jafe-jafe yi ngay jaar jëflante yu ñaaw yi ñuy def ak yow ca ngay jële ay leçon yu am solo loolu nag mu ne bul ko jàmbat kon ndax bu mettee it dana la wàcc lu la amal njariñ nee na daal nekkal ku yeew nekkal ku amug yëg te nangu nag ànd ak teeyug bakkan loolu nga xam mooy tax yi nga war a joxe te muy nekk li ngay méngaleek li nga jële ci àdduna ak li nga jàngee ci àdduna xam nañ bu baax ne bëri na lu nit di jaar ci metti metti walla jafe-jafe mbaa xat-xat wala jëflante bu ñaaw bu ko nit teg ba mu jàlle jànge na ci loo xam ne bu ko bëggoon a wër ci école di ko fa jàng di fayit du ko am dund ko rek mooy tax mu xam ko loolu nag la ne la kon bul jàpp mukk ne day ñëw gratuitement rek nga jariñoo ko noonu waaye faaw mu am lum la jaarale loo xam ne ci nga koy jànge kon nag euh, nit kum doon na ko waajal te foogu ko nga xam ne pour nga xam àdduna dëgg di ngay xuus ci ay métit bu ko defee boo ko jàllee rek leçon yam ca jànge loo dootul fàtte lay doon te looy wéy di jariñoo lay doon kon loolu moo doonoon xikma bi tey ñuy bañ a fàtte rek asalaatu ala nabi allahuma salli wa sallim ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi ñu ngi sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamu aleykum wa rahmatullah